ngi kontaan ñëw fii ci Touba euh, di euh, rencontrer xalif bi Serigne Mountakha Khadimou Rasoul euh, mu nekk benn visite boo xam ni dañ ñëwoon pour nuyu si ko nuyu si ko waxtaan ak moom pour wax ko li nga xam ni yëpp yéene nañ ko pour def ko Touba di wéyal pour wéyal liggéey bi. Euh, bi ñu ñëwee wax nañ ko ne li nga xam ni moo concerné événement religieux bi di am fii muy màggal bi wax nañ ko disposition yi nga xam ni jël nañ ko pour mën a euh, anticiper que distribution ndox bi euh, nekk loo xam ni en fait du indi benn jafe-jafe ci màggal bi di ñëw mu concerné d'abord transfert bi mooy extension yi ñu waroon def nga xam ni euh, bokk na ci fanweeru ñaari kilomètre euh, ñu war ko def fii ci dëkk bi euh, concerné aussi visite yi ñu war a def sur le terrain visiter forage yi pour xool forage yëpp lan moo ci sooxee yan matériel moo ci manqué pour ñu mën ko remplacer avant màggal bi di ñëw bokk na ci électropompe yeeg yi nga xam ni xayma woon nañ ko war ko mën a dugal ci dispositif bi en tout cas waxtaanee nañu ci waxtaan bu yaatu li nga xam ni moom la ñu fas yéene def pour màggal bi waaye ci beneen wàll ñun ñëpp xam nañ ne Touba dafa am jafe-jafe ndox euh, jafe-jafe ndox bi nag ñaar ñoo koy indi d'abord mooy événement religieux bi nga xam ni nit yi dañ fi bëri car euh, ak beneen bi nga xam ni mooy extension mooy mooy ville bi mooy euh, Touba dafay màggaayam dafa gaaw te loolu li ñu koy permettre li ñuy may rek ñu mën koo régler mooy ñu mën a di anticiper te anticiper mooy di prévoir d'abord ak par rapport ak extension ville bi ndax Touba mooy deuxième bassin humain bu Séné bu Sénégal donc ville bi dafay gaaw a màgg ñu prévoir chaque année ci politique yi ñuy def ñuy prévoir réseau bi ba pare di ko topp beneen bi nag mooy yi nga xam ni li ñuy wax ndox bi ndox bi moom euh, yéene bi mi ngi fi. waaye dafa nekk loo xam ni euh, dinañ ko waxtaanee euh, autorités yi waxtaanee ko euh, instruction yi ñu jot daal ci ministre bi Serigne bay Thiam mu nekk ministre de l'eau et de l'assainissement jóge ci président de la République du Sénégal mooy lépp lu ñu mën a def ba nga xam ni problème boobu dinañ ko solutionner ñu def ko ci nu mu gën a gaawee donc ñu am ci yaakaar moo taxoon ñu ñëwoon tey di sàkku ñaan ci xalif bi pour mu ñaanal ñu ndax mission bi nekkul lu yomb ndax euh, euh, demande bi dafa élevé ba pare moyens yi bëriwul mais yaakaar nañ ni yéene nit bu ci yéene yiñ euh, suñ ci defee yéene rek yàlla dina mottali li ci des donc ñi ngi koy gërëm di ko sant ci dalal bi d'abord ndax xat-xat ci xat la nekkoon mais euh, mu jël temps pour recevoir ñu euh, di gërëm aussi Serigne Koso mun Muntaxa nga xam ni moom depuis daanaka bi ma jëlee service chaque Euh, waxtu des fois daf may woo di laaj ci ñu ci lu ñu nekk ñuy waxtaan ci liggéey bi te yaakaar naa ne su ñuy waxtaan rek yàlla dina ci def sutura incha allah.